jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne lépp rek ngir wan leen programme bi nga xamante ne mooy waa Rent de DKR production ñoo ko organisé mu jëm ci le 10 bi ñu jëm muy dimanche bi ñu jëm fële ci arène national xale bii di guy gi war cee laale gis ngeen keroog ba mu ñëwee signature contrat ba fële ci arène nationale mook adversaire bi waxante nañ xas xas-xas jàpp bés ñu dem ba jour bi ñu ne làmb jooju amul fi toll nii mu ngi ci préparation mun gisee yére cosaan bi mu sol nga xam ni vraiment njaago bi mu ngi ci combat bi ba tey dama koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëwel waxtaan bi mbër nuyu naa la. fay naa la. alléluia alléluia alléluia. maa ngi ñaanal sama waajur jigéen yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam. amiin di ñaanal sama waajur ju góor fu mu tëdd yàlla na ko yàlla na ci kawam. di ñaanalaale sama rakku yaay bi génn àdduna barkaati Demba Njaay muy nuloo ko di ko jaale waa Géejawaay gi yëpp. Mm-hmm. di jaale waat waa Géejawaay suñu maire bee di sëy ak Baye Daaru mm-hmm. di bëggee ñu fi nekk muy père euh, Théo Philippe sama grand vieux di ñaanalaale Eumeu Sène yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy bu dee benn yàlla na ko yàlla jox bu dee ñaar ñu ñëpp. foofu nga mu dugg Pikine nga dugg Pikine. man moom wax dëgg fa yàlla dañoo judd fekk diggante Pikine Géejawaay doon six ak neuf boo ko taxawalee mu doon neuf boo ko juutee mu doon six. comme foofu amul lu yomb. sa adversaire keroog gis naa signature contrat bi mu ñëw yi ñaar mystique bi bari woon na laalanteeg joxañanteeg waxante mu mel ni seen combat yi ñaar combat xale la combat espoir la mais combat bi mystique bi da cee bari. waaw affaire bi moom noonu la mun a demee parce que booy bi champion la te doomu. booy nga koy wax booy. booy laa koy wax. booy. waaw booy la moom li ma koy wax mooy. champion la. Hmm. te pour nga nekk champion foog nga daan champion. Hmm. te man wax ji ma koy wax du bëri ñaan naa yàlla am ndam ci kawam. ci kaw kan. booy la doo bàyyi booy doo wax ci kaw Pokola rek nga ne booy. King dafa laay maa ngi ñaan yàlla am ndam sa kaw. Pokola est-ce que xam nga li ko gën a métti ci àdduna mooy booy bi nga koy wax nii. nee na booy boobu dina la ci dóora dóora dóora dóora dóor. garaaw la su fekkante loolu moo ko si métti mun mun naa ko jégalu ci booy bi moo koy wax. Hmm. ñaax ko bañ ko ñàkk ñàkk ñàkk dama koy respecté bañ koo dépassé wala dara. Hmm. mais dama koy jox cër bi comme moom affaire bu dee grand la bëgg ma jox ko grand bi. Hmm. waaw. diggu géew bi bëgg tamit nga jox ko. waaw ah, diggu géew gi moom loolu moom mooy géej gi am na ndox parce que man ku ma seetaan xam ne man duma ma ñëw sacrifice sama làmb ñëw jaar fii jaar fii wanteer ko dem sama yoon. Hmm. ba may dugg si làmb laa xamal gaay ka damay ñëw fekk ñi ma daan entraîné dama leen di fekk seen cosaan si liñ bëgg seen alalu bopp. ma hmm. fokkati ko loolu leen ko man maa ko gën a bëgg. te maa ngi koy wone te maa ngi ñaan yàlla mu gën a sax fii mu nekk ni jëmal ma kanam. Hmm. Hmm. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama sixième combat mais mun naa ne bii mooy septième combat. parce que sixième combat bi ñu ngi ko war a bëre bu jour ci jour bi mu yàqu. comme boobu sans verdict la muy 6 comme ñu ngi ci septième bi. septième bi septième ma nga ne luy loolu. <laughs> muy luy luy jour boobu lañ ko waroon bëri bi mooy sa sixième combat ba léegi bëree ko. waaw noonu lay demee. Hmm. maa ngi septième combat. ñaata six victoire benn benn sans verdict. sans verdict mooy nga ñëw làmb ja. arbitre bi yëkkati loxo arbitre joxul kenn joxul kenn bi waaw mais noonu la yow yaa créé sa sans verdict bopp. non non non demoo làmb yow bëriwoo ah, yow demoo làmb ja. CNG joxewul bindul bindaatul. arbitre joxewul victoire. Ah. waaw léegi yow man añ yooyu ma toog lu regroupement yooyu ma def. préparation gu métti togg añ ngay def. waaw si net bi. nga. dugal si net bi. ñi ngay waroon ñaan lu yëpp. làmb ji jàll ma fayaat ay bor kee sama mag la kii sama rakk la duñ ma bàyyi ma fen sarax génnee nga yëpp kii ñooy ànd 24 heures sur 24 sama grand la sama lëpp la. vie ngeen ñu ngi may dégg bu baax bu question nga ay làmb toog caméra jàkkaarloog man may dégg non non non non. billaahi maa ngi koy nuyu bu baax suñu paa boobu moo ñëwoon jour bu gàmm gàll bi. Hmm. billaahi te instant ni làmb ji métti na si ñun lool ñu ngi taxaw di. saraxu autorité yi nekk géejawaay yëpp muy këpp ku munti doon. Hmm. njëkkee ko ci Malick Gakou wàcc suuf pour ñu jàppale ñu amet ay dara ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen di ñaan jàppale si combat yi combat yi na lool dèjà ñu ngi koy bëre muy mel ni comme ñu ne la da ngay bëree par la force te kenn du la fay dara. combat moom lëpp a lëpp la la dikkee. mooy maanaam <laughs> da ngay bëree mais mënatoo cee am dara. am pare nekk si say bor lijjantiwaat ay fay bor affaire yooyu. Hmm. mais li ci ëpp solo daal essentiel bi yàlla nañu yàlla may ndam. parce que ñun ndam kese lañ bëgg te ñor nañu lool. ndam ci ko Pokola est-ce que dina loolu. Pokola daa judd fekk ngemb li ci kër gi. est-ce que am na lu jaaxal yàlla suñu borom. loolu mën nga koy laaj yàlla kay dara jaaxalu ko. xam nga ni dara jaaxalu ko. daan Pokola warul jaaxal kenn. dama guy gi mu ngi si kaw Pokola warul jaaxal kenn fekkente dañoo toog fii di lim palmarès walla qualité adversaire yi. Hmm. man ak Pokola làmb waruñoo boole. lu tax. ñi ma bëreel Pokola waxuma du bëre ak ñoom de mais samay adversaire adversaire ñoo bokk man du ma mbër boo xamante ne damay ñëw war a jël combat ma laaj Eumeu Sène mu ne ma noo xoolal lu nooy mu ngi du ma bàyyi ma fen. Hmm. yaa ngi entraîné chaque jour. respecter sa adversaire taxaw dëgëral sa bopp loolu la ma sant. combat bi xeex ak bëre ban moo ci sa avantage. ma wax ñaar yëpp de. non non non non. ñaar yëpp parce que parewu ma benn kese parewu ma benn kese su ma la nee xeex la moom mun na ñëw andi bëre su ma la nee bëre la mun na andi xeex. da ngay ñaar yëpp te. yëpp laa pare côté yëpp côté boo xamante ne pare naa ko pour mun a am ndam si kaw laa liggéey naa ko bu baax a baax. Hmm, combat bi génn nga ci dem ay Guinée wala dem ay. ci àll na li ñuy génne génn yoruñu ko di génn wax dëgg fa ku ñu jàppale tey tey tey su ma téewoon loolu loolu ma dem Guinée ñëwaat parce que moom laa am. doo tudd loolu loolu. mooy ñaar loolu ak loolu yéen ñaar moom yéen a bokk Guinée yéen ñaar. mënuñoo bokk Guinée. gan la fa. moom fa nekkee gan. moom gan la fa. ay maamam cosaanoo Guinée. ay maamam cosaanoo moom bawol bii la dëkk. bawol bawol yaayam mooy Guinée li yaayam mooy Guinée moom du Guinée man Guinée Bissau la waa baafata laa ma xamal ko lu leer bu xamee fan mooy baafata mooy fi ama di jugee chaque jour foofu mooy baafata moom gan la fa samay maam waa baafata lañ sama mag a ngee toog boo xoolee xam ni kii pël la xool ko xool ko bu baax xool ko. xees na de. amuñu fenn fu ñu bàyyi Guinée Bissau hmm. amuñu fenn fu ñu bàyyi Guinée lañ am combat bi maa ngi woo ñi nga xamante ne ñoom daan jàppale si combat te maa leen di woowaat ñu gën a jàppaat si combat hmm. ngi woo si combat bu baax Alpha Ba ñu koy wax Baboy kooku sama père day sonn ci man lool hmm. bu ma balaa ma ko yëg si man da ko yëg ci àll bi daf may woo téléphone ne ma mbër dugal naa la temps pare ci combat ndax mbër buy entraîner foog muy lekk. Mhm. pare day gisaat booy jox leen loolu ak loolu ñuy dox dem fu leen neex. dem di mhm. ñëw. Mhm. billaahi. Modou Kande maa ngi nuyu bu baax a baax. Euh, Modou jóol éleveur bu mag bi ak doomam Ibrahima borom pison yu baax yi. maa leen di nuyu di leen di wopp ñu jàpp ci combat bi. pison. <laughs> borom prison yu baax yi. waaw. Kanji. Hmm. Kanji maa ngi woo mu jàpp si combat bi bu baax a baax waaw marché jaaykatu yaab yi ndugukat yi ñëpp maa ngi leen di woo si combat bi bu baax a baax a baax. Hmm. di bëggee staff bébé guy bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Hmm. waa Dimène production. ñu ngi ba ci États-Unis war a jàppale bébé guy di jàppale bébé guy gi saa gis na open de presse bi nu mu demee woon. Dimène production moo fi jaar te maa ngi koy woowaat. instant lu mu jënd si biir doyul monsieur le maire maa lay woo lycée Limamou Laye bii. Hmm. nga jàpp si combat bu baax Bass Diakhaté instant nag ñu ngi lay wër fu nekk ñu nga jàpp si combat bu baax amuñu kenn ku dul yéen. Hmm. waaw ñun géejawaay lañ am moo ñu ñor moo ñu saf. Hmm. billaahi. xoolaa nag li ma ko ñaanal. moom ak ay mbokkam danañ ñaanal ñu am jaam tawféex wér gu yaram bu jur ba. mu ñëw wane ful ak fayda ñu bëre bëre bu neex bëggal amateur yëpp. Hmm. mu daan ko jël bu rëy. yaa ko wax euh, mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax mu nekk xale boo xamante ni vraiment làmb am nañ ci moom cër waaye am nañ ci moom yaakaar moom mu war a bëree ci le 10 bi ci diggante ma Pokola. mu nekk combat boo xamante ni ñëpp dañ koy xaar dañuy ñaan rek képp koo xamante ni autorité nga mu commencé ci kaw ministre des sports ñu jàppale xale yi parce que dimanche yàggatul. te combat bi metti na ci ñoom ñëpp li wolof naan jamono ji daa metti ku njëkk a yuuxu da ragal actuellement yaakaar naa ci làmb ku njëkk a yuuxu rek da ngaa ragal. waaw ma leen ne dama nuyu sa mbokk njaago yi bu la neexee ma laaj kilo bu la neexee ma laaj njaago. defal lu la neex. Eh. koo jënd ko moo kawe awokan maa man ñaan tout ñaan yi meen si na gineen si dañ populaar yi si woon nañ jàpp si bari ngi meeg si kriston ma ñaanu bantu i ruche pa tu chi nyansi chiring inyan na simba chi wimem koim chiji usi na simba chi nimpurung kanyan kanyan panjiga nyaro kami usi uso imo bundi kanyan ko buso panjiga nyaro kami parce que nyan mi kami renul afiansa armak tenkas ka pere ro kami po tu nimme im sina ginen sering manyan ba mm. jurarin ka ganyaro kami kanga kamon ko lenin diblingu tu si unan jaku na jinja sa kayu terre finari ci nun ci ko tout kaci ñaani ñi finari teɗu saka bo babu ma leni ndiɓlingo tout suma kayo eu saka ninji eu saka sinji eu saka timmeji finari cindi ba jukayo ma leni ndiɓlingo tout ko jeni kuma man sina poc man siw kore ma retiñen pendi ñanaren panje gañaro kamin li nga mujjee wax mooy lan waaw mooy damay damay ñaan samay mbokk chrétien rek hmm. am leen maa leen ñaan rek ngeen jàppal ma si combat bi combat bi jege na lool. Hmm. mais du suñu sago quoi buñ sañoon sax. mu xaw a xam nga mbëri des fois dañuy làkk li ñuy làkk ci seen i mbokk yi la yem duñ ko wax ci wolof. mbër hmm. làkk na fi ne jàppal ma tànk bi xaw ma la ñu laajaat ko mu ne waxul loolu. Hmm. ma xamal dara nga dégg. man dama nekk booy boo xamante ne lépp lu may wax dafay direct. ba may nekk booy ba tey dama ne samay mbokk chrétien yëpp. yaa xam muy njaago lépp lu bokk ci xeetu chrétien muy séeréer muy lépp lu mu doon ñaanal ma yàlla suñu borom ak lépp lu nit gëm. Mm. ci li nga gëm. Mm. ak li ngay ñaanee. Mm. yaa xam yàlla la. yaa xam lu mu mënut doon. nga ñaanal ma suñu ma am ci kaw Pokola. loolu rek nga tënk. waaw loolu laa ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. kereyool la mun nga laaj kereyool tamit kereyool ak njaago bi duñ benn. ñëwal ci kereyool bi <laughs> ay lekk naa avance boo dul wax fenn ay ca ñëwal. bondé ay ca man dañoo parentes mantenha tudo guinenses, tudo que conseguiu mostrar na Guiné-Bissau, na tudo lado de Guiné-Bissau só não mandou mantenha, na pediu, pandek bustanel pa pedi para mim. É luto que não luta dia 10, 10 mil que nós tanel, panganha é luto. Ami filho guinense, ami de caiu. bos tudo guinenses, gosta de bos messi bos, por tudo onde é que a Guiné tanel, o tanel Lisboa, o na África, na pediu, por judão, panganha é luto. Por <laughs> tudo maneiro que a Guiné pode judão só. peggu Donkel. tey hmm. lii metti nit toog nga jox ko micro bu wax ba yeggal te xamoo li mu wax lu ko gën a metti ci àdduna amul waaw ah, ba lay bu baax a baax naa bëgg nañ si yow bu baax a ah, baax. Ah. waaw comme niñ koy waxee rek di nuyuwaat waa Guédiawaye bu baax. Hmm. SAF bëgg guy gi nag fàttewuma leen. Hmm. surtout waa C9. lépp lu may def duñ nelaw. pour le moment rek su may bëri nii man bi nga xamante booy bu ndaw laa quatre laa def si làmb. sama mhm. buntu gaale dañuy dee ba fajar. ndeysaan. comme seen fay. Mhm. di woo géej ak yëpp su ma limee damay juum. Mhm. li may mun waa marché Ndiarème. waa notaire jamono bii ma nekk ni maa lay nuyu bu baax a baax a baax tableau sëñ Saliou comigo sans fil. waa Djibo Gunaas. fu su ma limee daal damay juum bokk joom mbooloo. Hmm. maa ngi lim fépp fépp fépp fépp pour gars ñu jàpp si combat bi ñu xam ne combat bi combat waa man kese maa ci bëri. Hmm. Eumeu Sène a ngi ci Marley ngi ci Bou Siteu Pape Thiam moom yàlla yàlla suñu borom fëgg boppam. Hmm. génne ko si tolof tolof bi. parce que suñu doomu nday la suñu nit la sama grand la borom baax la. moom nattu bi ko yàlla teg nii moom. du pour moom. Hmm. wax dëgg fa yàlla yàlla na ko suñu borom fëgg boppam jël ko yóbbu ko géej. Hmm. mu jugaat nekkaat ci li mu nekkoon. Hmm. loolu laa koy ñaanal bu baax. am na solo waaw di bëggee sama grand vieux. mafia boobu noonu ay saa daaru saa Touba. Euh, Baye Mass Thiandoum numéro 2. ñu ngi koy bëggee bu baax moom ci mafia bi la bokk. Euh, Babacar Malick Birane Philippe.